mooy barab bi nga xam ne jenn dëkk ci àddina bi jumaa ja la njëkk a tabax muy néegu yàlla laataa ñuy xalaat seen i te mbokk yi jamono jañ koy def seng lu jafe woon la sàkket lu jafe woon la ñi ko doon def taluñu seen i kër waaye ndigalul sëriñ bi tax na ñu xëy ci jumaa ji muy li njëkk a sotti di lifi njëkk a doon tabax ci dëkk bu sel bi di Touba kon xam ngeen ne barab boobu jaratul ñuy wax ab dayoom waaw nan ngeen mën a imaginer barab bii nga xam ne ñun sol mbaxana di ko romb sax xalaatuñ waxu ñu laa di dugg ca biir ñu ñëw ba ci buntu barab bi gas fa kàmb yu toll nii donte liggéey bu am solo lañ doon def dugal seeni tuyau dem bay ko fi loo ëpp ñetti weer kàmb gi nekk fii ci buntu jumaa te ku gis affluence bi nga xam ne moo am ci circulation bi fii rawatina ajjuma nga xam ne jumaa ji day fees ba ci mbedd mi rawatina mu nekk ci diggante jumaa ji ak sëriñ Tuubaa gi nga xam sëriñ bi bu doon wàcc wàcc waaye ma ngi nii sëriñ baa ngi fii di dégg li ñuy wax di gis li ñuy def waaw ndax jàpp ngeen ne jaadu na mbokk seetal leen seen bopp ba xam ndax jaadu na ba xam ndax yell na ci dëkk bu sell bi rawatina ci barab bu am maanaa bi nga xam ne ni amuñu lu dul moom muy jumaay Sëriñ Tuubaa Cheikh ma Bamba Xaadimu Rasuul pax yi bari nañ ci dëkk bi liggéey bi metti na foo taxaw ñu ne la du fii amuñu fu ñu taxaw pax yi gis nga suñ ponkalam gaara pax mi ci gaara ak ni mu jegee kër ak ni mu jegee kër sëñ Tuubaa ji fépp la nag lépp dañ koo ngeer ngaarew dem seen yoon lii dafa yàgg dafa yàgg fii na bu ta bu yàlla ji tawee nag oto duut dem oto duut dikk moom mais tali bi ni ñu ko defaree nii ndax am na couche yi mu war a am yëpp amul jafanduwul fenn ma nga seen ko dañ koo nguróoñ rek dem amul fenn fu mu jafan léegi bu sa camion sartee day suux ci biir bee defar xam nga ne ku ko xool boo doon ouvrier sax xam nga ne bii defar tegul ci yoon. làmb ji de liñ ci gis mooy métti lu lool di ko métti lu chauffeur sëpp di ko métti lu ndax zéro mètre digganteem ak jumaa ji oto kilifa bu ne dafiy jaar nit ku baax ku ne dafiy jaar gan yi jaar ci dëkk bi di jàll dañ fi jaar rafetlu wuñ ko nag commune bu mel ni commune Touba ay kamb nekk ci li wër jumaa ji. ndedd moo jaar da fa gis pax rafetlu wuñ ko. nga naan kàmb yi mais bul ne kàmb gi xaj na gii rek lañ gis. mais dëkk bi maanaam li mboolem lu fi ONAS dagg rek dara baaxatu fi bu fi nawet ñëwee bu nawet ñëwee daanaka lépp àdduna kenn dootu génn. léegi pour ñëw defar dañoo amul njiit xanaa parce que dëkk bi dafa am fu mu tege te maanaam loxo yi ko teg xañ na ñemewuñ cee wax. jege maanaam li fii de daanaka lee mu jege deux mois gis fii bi ñu ko jëlee liggéey ko dañoo jël karo yi rek teg ci kaw au lieu ñu mën koo def nañ ko defoon te bi bii Alaaji Baara moo ko liggéeyoon. defar fi liggéey bu baax ah kilifa gu ñëw ci ngay roy ah moo tax dëkk bi bu ñu ko tegee ci ay loxo dadul Touba dëkk boo xam ne dañu naan ay carte la koy may wala nangam ak nangam moo la koy may kilifa moo la koy may mais bu fekkoon ne ay carte koy maye ba léegi jóge nañu ko fi defar nañ moo ko ne du baax ba fi duggee ba léegi oto yi dañ fi sërëx sërëx ay oto oto yàqu nañ loo xam ne bi ñun dañuy wax wax bay bëgg te fan yee rek la fi benn oto dugg ñu mel nii ci dëkk Sëñ Touba bii day def yeneen nag yeneen ak yeneen yoo xamante ne bii naka sudul noonu la ñu gis lii kenn ku nekk di fi jaar xam nga ne jumaa ji ñu jàkkaar loolu lii taaru ci ñu ay nit di fi doon ay gan di fi jaar yàggaay bi ak yàggaay bi lu lépp nekk fi xam nga ne jaaduwul lu rafet itam war nañoo wax bay bëgg a de nag mënuñu dara waaye kon ci mën a dimbali daal te yàlla tax nga dimbali ñu ay safar lañ di daan suñu doole mais yu mel nii mënuñu cee ànd ak moom di daw di ci daanoo ko génn muy mit lool fii boo fi jaaree boo demee rek boo dee kilifa sax fa ndiggali day rax bala ngaa yegg sërëx sërëx lay def ba oto bi du dem fenn dagg nañ ko dem nañ seenu yoon gisatuñ leen nañu dimbale ngir yàlla ak ngir jëmmi borom dëkk bi oto yu bëri yàqu nañ ak sa maam Cheikh Rafal dëkk oto yëpp yàqu nañ oto yàqu nañ yàq nañ ndiggi taximaan yëpp yàqu nañ ci pax yi jërëjëf mbokk yi damay laaj rek ko xam wax ndax lii xalaat ngeen ne boulevard de la République benn xeer walla benn kàmb xalaat nañ ko faa bay ci benn minute mbokk yi xalaat leen ndax lii jàpp ngeen ne buntu palais de la république xalaat nañ faa teg benn xeer ba fay gasi kàmb di ko fa bay benn minute waxuma la lu ëpp ñetti weer mbokk yi ndax xalaat ngeen ne lii am nañu xalaatu def ko buntu assemblée nationale ndax jàpp ngeen ne lii am nañu xalaat ko def ko buntu ministère de l'intérieur wala sax ndax jàpp ngeen ne li mbokk yi xalaat ngeen ne yoonu Mermoz kàmb gu mel nii mën nañu ko fa def di ko fa bàyyi benn minute waxuma laa ñetti weer waaw yéen jàpp ngeen ne sun barab bii di barabu umma islamique bi yépp danañ ko tëkkale ak barab yi ma leen wax mbokk ndax jekk na ndax jaadu na ci wàllu insécurité ak ci wàllu symbole diggante kër sëriñ Touba ak jumaay Serigne Bamba ji ñu gas fi donte liggéey bi ñuy def la am solo la ndax yoon wuñ jaarale ndox yu bon yi la ñu gas tali bi dagg ko dugal seeni i tiwo dem seen weyoon te boo sàgganee nag màggal ak programme mu màggal la koy jëmale. seen yoon nekkul ci usager yi seen yoon newul ci kilifa yi fiy jaar seen yoon newul ci barab bi ak cellange mbokk yi. ndax jàpp ngeen ne lii kenn xalaat na ko def biir ndakaaru ku xam wax ma waaw ana ñi nga xam ne ñoom lañu dënk dëkk bi ñu war koo taxaw ñoom lan mooy seen responsabilité ci lu mel nii nan lañ mënee nekk ci dëkk bi ñu dénk leen ko ñu toog ñetti weer kàmb gu mel nii nekk ci barab bi gën a sell ci ñun ci àddina bi ñu bàyyi ko fi kenn yéyu ci yàbbi jël ay xeer nii wërale ko muy loo xam ne kenn xamul lu muy nuróol